baaxatul eh, doon nañu jàng ci siira ki nga xam ne moo nekk maamo Omar ibn al maamu Omar ibn al eh, xale bu tuuti di jaay ànd ak yaayam ñuy jaay soow bi ñu demee ci ba ñu demee ba jub dëkk bi yaay ji wax doom ji ne ko da ngay tànk ndox nga sotti ko ci soow mi tuuti pour mu gën a bari ndax bu demee ci dëkk ba mun koy jaay mu gën a bari ndax booba eh, xalifa bi muy Omar ibn al Xattaab moom lañ ragaloon yaay ji ne ko xalifa bi du ñu gis xalifa bi mënul ñuy teg bët kon tànqal ndax nga sotti ci mu gën a bari xale bi ne ko yaay bu ñu fekkee xalifa bi xalifa bi bu fekkee gisuñu itam borom xalifa bi mu ngi lay teg bët te kenn ku nekk xam na ne borom xalifa bi mooy yàlla kon di jaay moo xam diw ngay jaay lu mënta doon tànk ndox sotti ci pour ma gën a bari loolu yëpp bari na ci te dañoo xamul ne saari alquran def na intervention ci biir marché bi ñun jàng nañ suratul mutaffifin li ñuy wax contrôle économique donc jullit ñi bu ñu ragaloon yàlla agent yooyu bu ñu yeboo jëlee leen fi amatul ndax jullit bu nekk mooy nekk sa mooy nekk sa contrôle économique yow ci sa bopp ndax war ngay xam ne bu fekkee amul agent boo xam ne mooy contrôler marché bi itam yàlla yàlla mi nga xam ne dara ump ko yàlla mooy contrôler marché bi su ko defee nga seet li nga xam ne mooy nekk aqu njaay boo jàngee waylun lil mutaffifin allazina istactaalu ala nasi yastawfun wa ida kaaluhum aw wazanuhum yuxsiruun allah yazunnu ulaika annahum mab'uthuna li yawmin asimin yawma yaqumu nasu li rabbil alamin loolu rek mooy saar bi nga xam ne ñëw ne contrôle économique lan tey tekk yàlla moo xam ne taffiif bari na bu fekkee da ngay nettal nit nga nottu pot bi boo demee léegi ci marché bi fi ñuy jaayee gerte gi di nga ko fa fekk léegi da ngay gis jaaykatub gerte wala jaaykatub dugub nottu pot bi wala mu lem ay këyit sotti ko ci parce que pot bi moom wax nga ni kilo la mais wàññi nga ci genn wàll libar wala wala wala wejji nga bari na mooy lan këyit yi ñu teg ci kaw booy natt nit ñi di leen jox te booy natt di jël da ngay bës pot bi mu dugg encore loolu lépp ñun gis ko ci marché bi gaa ñaa ngi koy jaayee yàlla mu ne allah yazunnu ulaika annahum mab'uthuna li yawmin asimin ñii def loolu xanaa yaakaaruñ ne yowmal qiyam yàlla dina leen dekkil bés boobu nga xam ne bés bu mag la kon bokk na ci comme que sëriñ sa leen yaakaar ñun xam nga yàlla munoy tappale def li la neex ba pare bëgg yowmal qiyam ni def intervention sa côté yàlla kenn du ko imposé na ko defal nangam bu fekkee islam la kilifa yi ñu yaakaar yépp ci ndigalul yàlla la ñu tënku ñoom man ma ne tënku naa ci ndigalul kilifa te mboolem sarta bu yàlla tëral ma teggi ko teg fee mboolem sarta bu yàlla tëral ma teggi ko teg fële bu ñu waxee nga ne diw ci boppam yowmal qiyam diw yaa ngi koy tuumaal jotewul ak yow dara damay wax ne sayyidina Muhammad alayhi salaatu wasalaam rëmmu na jàmm ñi bu fekkee ñun Sénégal rëmmu la ñuy wax rëmmu sene yonent bi rëmmu nañu bu yàgg keroog ba alquran ñëwee keroog la ñu sayyidina Muhammad rëmmu li ci nekk mooy ñu toppatoo alquran appliqué sarta yi mu wax jëm koy roy su ko defee bu yowmal qiyamee ñu yaakaar rëmmu ci sayyidina Muhammad waaye li alquran wax duñ ci def dara li Seydina Mohamed duñ ci duñ ci def dara li kilifa yi tegoon duñ ci def dara te buñ taxawee yenn yi nax sa bopp la jullit du nax boppam jullit dafa war a yeewu ko am ko nit ku am alquran da nga war a yeewu nit ko am Seydina Mohamed alayhi salaatu wasalaam da nga war a yeewu nit réew mu am Serigne Touba dañoo war a yeewu réew ma am Alaaji Malik dañoo war a yeewu ndax ñoom seen lépp ñu ngi ñu ngi ko teg ci alquran ak sunna yenn yi nag nax sa la te loolu nekkul loo xam ne lii maanaam lu baax la boo ko defee boo réeree nangu walay gëstu xam lii sa droit ci àdduna doo mën a xam li nga xam ne mooy sa droit ci yàlla ku xamul droit bi mu am ci àdduna du xam droit bi nga xam ne moom la am ci yàlla ñun ba léegi droit ba ñu am ci yàlla xamaguñu ko parce que amuñu xamuñu droit bi ñu am ci l'islam xam nga jullit ku ne rek kilifa diina nga jullit boo ne ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammad rasulullahi kilifa diina nga war a doon kilifa diina sa diina kenn dootu ko lay yàlla balaa nga koy xam na lay tuubal est nit mën lay tuubal bu fekkoon damaa nekkoon yéeféer bëgg a dugg ci l'islam est-ce que kamay dem na ko dama bëgg a tuub kooku baatu shahada yi bi maanaam baatu shahada bi muy wax man nay remplacer sama bos man baatu bi muy wax moom est-ce que man nay remplacer sama bos sama bos kenn mënu lay tuubal kon sa diine kenn mënu lay julil kenn mënut lay wooral kenn mënut lay jàmmul yàlla yàlla la ngay def yaa koy defal sa bopp yowmal xiyaame kilifa yi nañ leen bàyyi kilifa yi ñuy bàkkoo def ñuy tardel ñun Sénégal loolu ñuy sama baay noon na sama maam noon na amul solo yow loo wax yow ak noo mel kon loolu moo am solo yàlla doon na wax ne tilka ummatun qad xalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum aya boobu anamu yàlla ne ne kilifa yi kenn ku nekk la nga def dinaa la ko fay su yowmal qiyaama mais yow ci sa bopp li nga def loolu laa lay laaj ñun ñu bàyyi sunu effort bopp te xoolal da ngay dégg ko naan la diw la yaakaar àdduna ak alaxira boo xëyee suba teel tëddal sa ko xaar moom dina la jox añ wala la jox añ kon bi moom wétti nañ ko ndax bu fekkoon ne yaakaaru àdduna gi nga wax la dangay xëy suba teel toog di ko xaar waaye say mbir yaa koy lijjantal sa maanaam sa bopp boo toogee sa dara du sotti yaay ne ci marché bi daw guddeeg guddi maanaam guddeeg bëccëg te buñ la waxee nga ne diw laa yaakaar adduna ak àllaaxira adduna moom foosi na ana àllaaxira adduna moom foosi na kon loolu ay kalimat la ay baat la yoo xam ne dafa bari ci nit ñi jullit nag warul mel noonu jullit pir du wal maanaam jullit pir du mel noonu sa jaamu yàlla bul ko wekk kenn Sëriñ Tuba doon na wax ne awalu waajibin alal muridi taxsilu zadihi min a tawxid yi loolu mooy lan murit bi na ut sëri ca tawxiid ñu doog a daje yowmal qiyam murit bi na ut sëri ca tawxiid ñu ut maanaam ñu doog a daje yowmal qiyam yowmal qiyam ku fa présenté tawxiid jaratu sax Seydina Muhammad di maanaam nga di ko gis jaratu ko àjjana directement nga jëm yowmal qiyam ku fa deete wala ah, ah, maanaam ku deete bokkale woo yàlla kenn mais daxalal janna loolu yonent bi wax man maata walam yusrik billahi shay'an daxalal na ku dee yowmal qiyam ku fa présenté tawxiid da nga dugg àjjana kon kilifa yi yépp tawxiid la ñu indi woon kon il faut ñu jàpp ci tawxiid boobu pour bu yowmal xiyaame yàlla man ñuy dimbale bu yowmal xiyaame Seydina Mohamed rëmm na jàmm ñi alquran ñëw na alquran ñëw na euh, ku ci jàpp eh, ya maanaam di appliquer la nga xam ne moom nga ca man yàlla wa yàlla ci boppam wëlbati ko dimbale la kilifa yi amul kenn ku bind yowmal qiyaam ne yowmal qiyaam suma maanaam sama taalibe bu defee li nga xam ne moo ko neex bu yowmal qiyaamee ma ne yàlla ma ne yàlla jéggal ko amul kenn ku ko bind ñuy jàng xas yi day bari nañ ku ci mën a génne bayit boobu ci Sëriñ indi ko fii wala ñiy jàng téere alaaji Malik bari nañ ku ca mën a bi indi xasida yooyu bari na fi bari na nag ku la traduiral xasida daf lay nax Sénégal ñi leen di ñi leen détourné ci Sëriñ Tuuba mooy yenn kat yi mel ni man xam nga dañ naan murid dafa tàlli murid dafa tàlli léegi ma wa léegi ma dóori bayit ngeen dóor fii ay 5000 léegi léegi léegi est ce que bayit yi ma leen di dóor nag est ce que na ma koy firé Sëriñ Tuuba wax loolu est ce que Sëriñ Tuuba wax loolu mais li su ko defee may xool xasida yi di ko toj di jàllar bi ngeen di wëlbati ko di ma jox maanaam su ko defee bu ñu waxee ngeen ne mais Taïb Socé Taïb Socé bëri Taïb xam-xam fu ngeen xewlee woo ma ngir lan seen poste dama leen di nax dama leen di exploité ci loolu Serigne Touba mosul bind loolu Alaaji Malik mosul bind loolu bari na koo xam ne dafa am benn paa boo xam ne dafa jàng benn xasida fi Serigne Touba di wax ne man baadara waxta siqari ilal eh, man man baadara waxta siqar eh, ilal huda ishtaraha waxtal kibar Sëriñ Tuba nee na ku doon góor maanaam ku doon ndaw jamono bi nga nekkee xale nga góor góorgóorlu jëm ci njub Sëriñ Tuba mu ne boo nekkee mag di nga noppalu loolu la wax. ku doon xale boo jàngaleen tasawudu si xaar ku góorgóorlu ci sax ndaw jàpp ci njub Sëriñ Tuba nee na boo nekkee mag di nga noppalu mag mu noppalu ngay doon. ma fekk paa bi di ko firee naan Sëriñ Tuba nee na ku ma jox sax ndaw ma téel la sax mag xoolal loolu xoolal loolu xam nga loolu dafay niru dëgg dafay niru dëgg. ci kilifa gu toll ni Serigne Touba lu mu wax noonu la waaye xoolal na kooku ni mu traduire bayit bi Serigne Touba nee na ku ma jox sag ndaw ma téyel la sag mag naka lañ koy joxee sunu ndaw nan waroon na koy jëra leeral te na xoolal moom day yalwaana day taxaw di wér di wër ko koppar moom ci boppam est-ce que ma koy jox dina yegg ci Serigne Touba est-ce bayit bi muy yalwaanee Serigne Touba wax loolu kon genre doomu aadama yooyu dañoo bëri ci dëkk bi nag léegi te moo tax ñun ndaw ñi il faut ñu yeewu il faut ñu jàngi islam ba la ñu koy tax a xam suñu droit mooy il faut ñu jàngi ko te comme ni ma koy waxee toujours dama koy faral di bamtu islam bi kenn ku ne xam na ne su fekkoon ne ci race lay yem sëriñ ma kon Sénégal du am Serigne Touba Serigne Touba africain la nit ku ñuul la xool leen lim liggéey ci l'islam mu ngi làkk arab yoo xam ne arab yi dégguñu ko islam bu fekkoon ne race la du ñu am alaji malik ci waawoon gii la dëkk nit ku ñuul la africain sénégalais mu ngi làkk arab yoo xam ne arab yu xamuñu ko kon islam du race nag moom léegi islam du race laa bëgg a wax islam ci kër islam bu dëkkoon Euh, nekkoon waa Quraysh sin kese ci lay yem Salman Paris mais parce la Iran la dëkk liggéey na ci islam loo xam ne Quraysh sin liggéeyu ko yonent bi di wax ne salmanu minna ahlul bayt Salman ci waa kër gi la te iran iranien la du arab bu ñu xoolee Bilal africain la nit ku ñuul liggéey na ci l'islam loo xam ne benn arab liggéeyu ko mais ñun Sénégal comme que islam bi demeewul noonu ñun dañoo jële islam bi yemale ko ci ay kër Sénégal ku santul si xamoo ku santul Mbàkke xamoo ñun noonu la def ñun ko santul ñas xamoo est-ce que yonent bi Mbàkke la sant wala wala wala si wala ñas kon loolu il faut doomu aadama bu nekk war la ci islam li ñu koy waxee alquran kër ka ko jàngale dëkk kër ka ko jàngale dëkk ka ko jànge yeewu waaye bu ñu xoolee politique bi nga xam ne maanaam mu ngi daw dafa nekk loo xam ne agression la la la cay yee nag yow mooy sa lislam sa lislam moo la ci yee bi ñuy ñëw léegi ñu ngi waxtaan ci euh, doomu aadama yi nit ñi ni ñu leen di naxee sénégalais yi dañ leen agressé Sénégal daf na yeewoon ngir lan mën nay lijjanti xaalis te lijjanti xaalis gi mooy tappale am xaalis ñun boo sénégalais ni mu yeewoo sénégalais sénégalais yeewul ku yeewu mooy xam sa bopp ñun dañoo agressé ci nasaraan bi agressé ñu ci l'islam bi dañoo agressé ci nasaraan bi agressé ñu ci l'islam bi xaw ma xam nañ comme déet tubaab yee ñu colonisé ci ci nasaraan bi waaye ñenn Serigne Touba moom libéré woon na doomu adama yi waaye ñenn ñi nga xam ne ñoo fi nekk nag actuellement wala ca jamono ju njëkk ñoo ñu agressé ci l'islam bi loolu moom bu ma toogoon feneen fu ma toog dinaa ko wax te man naa koy lay mën naa koy lay génnee aaya yi mën naa koy lay génnee xasida yi awma ci benn problème euh, léegi bu fekkee ne damay wax ne Sénégal euh, gouvernement bi ñun moo ñu tuddee ay baadoolo bu liggéeyoo ci gouvernement baadoolo lañ lay tuddee boo dul sëriñ lu lay tuddee taalibe taalibe yi kon ñooy baadoolo yi ki ki ñu tuddee baadoolo moo ki ñu tuddee sëriñ ñoo ko wàlli sa ñoom ñaar gis ngeen ko li ma leen di moom da nga ko da ngeen koo gis euh, Euh, mbirum yàlla ñaare en général li ma lay wax ne la nit ku nekk yaa war a doon sa kilifa diina boo ko do yaa nekk yaa war a nekk sa kilifa diina soo ko defalee ba yowmal qiyaama di nga ko layoog yàlla di nga ko layoog yàlla ñun ay ndaw lañ Sénégal ñetti julli ñeenti julli yàgg na fii am mais dama naan man sama bët yi neex nañ sama bët yaa ngi nii neex nañ mën naa yéeg ci kaw étage yi seen tum weer du ko def weer day dee man ne ci li ma neex naan sama lay xaar sama sëriñ boo demee sax bët yi neexatul actuellement dañ naan ko weer wi feeñ na rek mu wax la ko ku bëtam yi neexul nga di ko xaar yow mi sa bët yi neex pour lan te ñun noonu lañuy def ñun senegal noonu lañuy def bon weer wi ci boppam man gis naa ne am na ci lu ñu seet mooy ñi nga xam ne nit euh, doomu aadama yi dañ leen a topp koo xam ne boo waxee ñëpp def li nga wax weer du dee ba nga woo télévision ne kaay ma def déclaration weer du teru ba nga ne ba nga woo waa rajo ne xaral ma def déclaration mosu leen koy gis ci benn sëriñ waaye kenn ku ne bu sa bés teroo nga woo télévision jax ran lépp maanaam il faut nga wax doomu aadama yëpp dégg sa bésu bopp kon yow yàllaa la yitteel wala sa bésu bopp la yitteel yàllaa la yitt ku ci yàlla yitteeloon bu weer deyee ñëpp woo télévision maanaam ñëpp woo télévision kuñ ci woo nga ñëw nga taxaw wax nit ñi di la gis di la dégg nga wax kañ la julli gi mais duñ ko def bu weer deyee kenn du dégg déclaration benn sëriñ du ngeen ko dégg waaye ku ci sa bés xewle nag nga woo télévision ñëpp jàkkaarloo ngay wax ngay woote pour lan bés bi bu kenn wute gis ngeen loolu agression la loolu ñun ci suñu bopp ñoo war a bàyyi loolu bokk na ci marchandise bi bu seeree kan moo koy kan kan mooy seeral marchandise bi lu mooy gouvernement bi mar gouvernement bi moo yëkkati marchandise bi nu ko neexee su ko defee benn sëriñ du sorale taalibe yi waroon nañ di sóoraale taalibe yi man awma kilo ceeb kilo ceeb bi dafa métti yow ay camion lañ lay versé yow doo jënd ceeb doo jënd diw dañ lay jox ay camion yu ceeb ay camion diw waaye bu ñu yëkkatee ceeb bi doo kaas te bu te bu te bu woote jotee nga ne ma wooteelal parti te man du ma ñemee bañ mais mais mais lii mooy lan lii bu ci Sénégal continuer avancement du am te doomu aadama yi dinañu loru ki nga topp mu lay nax ci àdduna ba yomal xiyaamee doo ko gis façon boobu ñun ñëpp nañ leen bàyyi loolu dangay xool ñetti julli ñaari julli te bu PS wootee sëriñ si yëpp PS la ñuy doon gis ngeen loolu amul murit amul tijaan ah, amul xaadir ak layen sëriñ si yëpp PS la ñuy doon te bu julli jotee nga xàmmee tijaan ak murit pour lan te ñu ne nag léegi islam la ñuy liggéeyal Eh, maanaam euh, nañu xam ne seen i yoon la ñuy liggéeyal mais liggéey ñu ka koy liggéeyal mooy intérêt islam ci boppam ngay taxawu agression yi nag dafa métti agression yi dafa métti ka koy gis nag mooy ndaw a koy gis ñun xare yi lañ leen bañ man nag li may wax la ba waxoon rek la fa man saa fal yu'min wa man saa fal yakfur forcé wuñ kenn comme bëgg na gëm comme naqari na wéti yowmal qiyaam yàllaa ko moom ajjana ajjana man yërmande yàlla yaakaaruma yërmandeel keneen man yërmande yàlla ak shafaatu sayyidina Muhammad alayhi salaatu wasalaam jeex na moom laa fa yaakaar yenn wax yi nga xam ne ñu ngi koy wax nag ay caaxaan la yu ci dëgg ay caaxaan la kilifa yi dañ leen sos dañ leen a sosal a ba fi nekk nii ku leen xamul sax dina leen bañ dafa am benn waaye buy ñëw rajo Dunia temps yële ñu ngi koy ñu ngi koy enregistré toujours mu ñëw ne ma dama bëggoon nga enregistrement ma toog dugal ko studio déglu ko la mu ne dara nekkul ci dëgg te Serigne Touba la doon wax mu ne ma bu subaa kañ lay jël sa kaset bi ma a ko bu subaa nga ñëw mu ñëw ma jël ma jël kaset bi ma dugaloon studio delloo ko ko ne ko yow du ne ko yow du la teg mu jaar ci gannaaw fexe bañ arrêté ko dama ko arrêté ñu dugal kaset bi ñuy wax ma jot ma jot ay ñaari ñetti coup de yoo xam ne ay mbàkke mbàkke lañ ñuy wax ci Serigne Touba dee leen leen seet waay ndax koo xam ne buy wax poosam lay séntu bu leen ko teg kii li muy wax xamu ci dara téléphoné ma di ma ko wax ñoom manoon manoon naa leen di wax seeni yooyu wax nañ wax nañ dëgg ndax moom mu ngi wax place pour mbàkki mbàkki yi di ko xaj di ko woo ci ay conférence mais la mu doon wax sóoralu diina ji sóoralu wër Sëriñ Tuuba xaalis su boppam la doon sóoraale ñooñu nag tey ñuy wër ci mbedd yi conférence ak sénégalais yi xam nga maanaam Sëriñ Tuuba bu ñu bëggee jëri moom dañuy jàngi arab Sëriñ Tuuba làkkul anglais lakkul français arab la làkk maam Alaaji Malik làkkul anglais làkkul français arab la làkk ñun nag damay toog ma doon arabisant ma lay leer la nga ne eh waaye eh, maanaam eh tey soo sa alaaji malik de arabistan nga naan arabistan du la leeralal yow ki jàng arab boo d'accord mu leeralal la xasaayid yi kan moo la koy leeralal francisan Serigne Touba du francisan Serigne Touba lam làkk arab la ki jàng arab moo la ko wala mën a leeralal mais damay toog euh, maanaam jàng arab ñëw naan la Serigne Touba nee na nga e ñi ay la mooy gëmuñu dara ah kay gëm nañ dara ku gëm yàlla kese am tawhid gëm nga dara yow kay yaa gëmul dara yow yow mi gëmi nit bokkaale yàlla ak Samba ak Demba yow yaa nekkul ci dara yow kon loolu il faut ñu bàyyi façon boobu loolu maanaam façon boobu moo ñuy nax te commerce beeg business beeg kenn ku ci ne ay taalibi Serigne Touba ak ay taalibi Alaaji Malik la te kenn ku ci nekk da nga cay demee Serigne Touba waxut la ko Alaaji Malik waxut la ko kon ñun ñu ngi nax suñu bopp ci façon boobu il faut ñu bàyyi loolu tey yëf yi ñu ci xool yàlla yenn yi tilimal sa sëriñ la kilifa yi dañoo bay seen i kër ba mu set ñun ñuy tibb ay xob di ci sotti kilifa yi dañoo bale seeni kër ba mu set wecc ñun ñuy tibb ay xob di ci sotti loolu nag euh, maanaam nekkul loo xam ne lii lu am solo la ñoom ñëpp euh, kilifa ya waroon nañ koy kaas mais kenn du ci kaas seen intérêt bopp la ñu seet ak i mbiri bopp yàlla islam bi moom amul euh, islam bi moom euh, benn waaye noon na li kulli qatilin nax yanahnahu wa laysa li diinil i naihu kenn ku ne mbo maanaam ku dee am nga ko la jooy mais diina yàlla ci amul ku ko jooy xaalis dong lañ xool sefa sefa lañ xool boo amee xaalis yaa baax boo amee xaalis yaay sëriñ senegal am na sëriñ yoo xam ne sax mokkaluñ fatiha fii am na fi man naa leen sëriñ yoo xam ne moo ko luñ fatiha gis naa ko te nag mbooloo la am kooka mbooloo mi fan la leen jëmee moom mbooloo fan la leen jëmee ki nga toppate doo leen teg ci alquran ak sunna foo leen jëmee kon ki ngay topp yàlla nee na toppaate man ta ñàkk mais wa tabia maanaam wa tabia wa tabia sabila man anaba ilayya yàlla mu ne ki ngay topp na jaar ci yoon wi jëm si ci man toppaate man ta ñàkk mais toppal ku maanaam toppal ku jaar ci sharia toppal ku jaar ci sunna mais topp koo xam ne tànkam xamul sax lan mooy sunna xamul sax lan mooy sharia nga topp ko mais fan la jëmee kon loolu ñàkk xam la am na benn waaye mu ne ma ki ñu doon woo mbirum malaayika la ñu doon wax temps yële gis naa jibril gis naa jibril mais temps yi gis naa jinne la may wax la ñuy wax man leen su ngeen moytandikul mu dox ci seen loxo jibril dootu wàcc ci keneen wàccoon na ci sayyidina Muhammad alayhi salaatu wasalaam jeex na yenn yi du pas-pas bu jullit du bu wér jibril lan lay indi lan xanaa yow gëmoon na sayyidina Muhammad moom mooy xaatamu nabiyin xanaa gëmoo loolu aaya bi yàlla di wax ne al yawma akmaltu lakum diinakum tey diina ji jeex na ca jabalu Arafat diina ji jeex na kenn dootu ko yokk kenn dootu ko wàññi yow nga naan jibril ñëw na lu mu fi ut si wala jibril bu ñëwee ci nit lan la koy indil kon bu fekkee séntu nga ne jibril am na keneen ku mu ñëw di ko jox leneen yow gëm nga yow gëmuloo ne islam mat na da nga gëm ne manqué na kon wootekat yi aqida yi ñiy këf doomu aadama yi ci ay caaxaan bari nañ rawatina fii ci suñu réew mi Sëriñ Tuubaa nag doon na wax ne laysa kulla mu dawarin kaakan bul yaakaar ne lépp lu ron biscuit la koo ko weddi jàngal Masaalikul Jinaan dana la xamal yan façon doomu adama nga war a topp yow dana la xamal yan façon dana la xamal yan façon doomu adama nga war a maanaam nga war a topp doon na wax ne kayfa yasudu fi zamani wa huwa yuridu salba ni'matal ixwan ki nga xam ne li mu bëgg mooy xiiwal gi nit ñi am mu di ko jël Sëriñ Tuubaa nee na kooku nan naka lay nekkee sang ci jamono koo xam ne wër nit ñi di leen laaje addiye nee na doo nee na nee na kooku yonent bi daf ni ay yaddul ulya xayrun min yaddi suuf la yonent bi ne loxo bi féetee kaw moo gën loxo bi féetee suuf bu fekkee dégg nga wolof yonent bi nee loxo bi féetee kaw moo gën loxo bi féetee suuf kii joxe gën kii jël la yonent bi wax yow ñu dëkk di la jox ba pare nga yaakaar ne yaa ma gën foo ma gënee ki lay jox kay moo gën yonent bi alayhi salaatu wasalaam doon nañu jàngal ci doon nañu jàngal ci doon nañu jàngal ci hadisam yi naka lañuy defee am njaay yonent bi doon wax ne euh, boo xoolee doomu aadama bi jël sémmiñ dugg ci àll bi di gor di jaay foofa la islam na lay am njaay ci sunna nit ki gàddu sémmiñam dugg ci àll bi gor di jaay di ca effacé ñaqu ba kanam ñaqu kanamam yonent bi nee moo gën muy wër di laaj nit ñi moo xam ñu jox ko moo xam ñu ñàkk koy jox jël sa sémmiñ dugg ci àll bi gor mat di jaay nee na moo gën nga wër di laaj nit ñi moo xam bu ñu la joxee baax na wala bu ñu la joxule mais war di laaj ni ñi moo jaaduwul dañuy dem ba di la tënk la nga lay joxe maanaam ngay joxe mais ak difficulté ngay joxe ak difficulté masalan ñu ñëw ñu sas la man dem naa ci benn dëkk dafa am benn oto bu ñëw rek gaare ñu ne sëriñ bi Jóob la sant wàccut ci benn kër dafa dal ci pénc mi nit ñi ñëw mu sas leen juróomi saako yi maanaam léegi juróomi euh, maanaam maanaam fukki saako yi dugub téeméeri ganaar waa dëkk bi di rey maanaam waa dëkk bi rey seen bopp pour jox leen ko pour di ko ko jox wàccut ci benn kër wàccut ci benn kër dafa ñëw rek korno waa dëkk bi yëpp daw génn ñu ne lan la ñu ne sëriñ Diop Serigne Diop mooy kan kan mooy sëriñ Diop kenn xamul fan la dëkk mu ñëw sas waa dëkk bi mu ñëw sas waa dëkk bi fukki saakoy dugub juróomi saakoy gerte ak ganaar yu dul jeex ñuy reyante di ko ko jox pour lan gis ngeen loolu yéen ñëpp yéen ñëpp ay senegal la ngeen li may wax yëpp gis ngeen ko façon boobu ci boppam kenn dafa xamut mooy lan te yaakaar nga ne boo ko ko joxul sa lépp ay yàqu na nit ku lay di jal sa alal di la lekk pour lan islam gëm na dimbalante wa taawanu ala birri wa taqwa wala taawanu ala al ism wal udwan na nit ki bu tëlee na ngeen dajaloo ngeen dimbali ko waaye nag li dul yoon mooy imposé la dara imposé la nangam ñëw rek na la nangam laa la sas nangam laa la sas nga miiras sa bopp joxe ko ko lekk na mais la mu lekk àq la ak ku mënta toll nag la mu lekk àq la te nit ku ragal yàlla dëgg du lekk àq ku ragal yàlla dëgg du lekk ak nañ leen di topp nit ki ci ragal yàllaam ñun bañ di topp nit ki ci darajaam amul solo nit ki soo koy topp da nga koy topp fi ragal yàllaam toll mu war na ne kii boo ko toppee ci ragal yàllaam gi dina la jàngal lan mooy ragal yàlla waaye topp nit ci ay daraja pour lan li kullin darajatun la yàlla wax kenn ku ne am na daraja baatub daraja baatu arab la mooy lan nañ leen ko firi kii jaay njaay ma miy jaay am na ca daraja borom xam bi xam-xam ko yàlla jox daraja la ci moom yàlla nag mu ne daraja yooyu ma jox leen li yabluwakum moo tax man yàlla dama leen ko jox pour nattu leen yow mi xam est-ce di nga xamal ñi xamul kon xam-xam bi ma la jox daraja la waaye yàlla mu ne daraja jooju di xam-xam bi dama la ci nattu ndax est-ce que ñi xamul di leen xamal wala dé alal ji la yàlla jox daraja la yàlla mu ne darajay alal ji maa ngi lay xool ndax ñi amul da leen dimbale wala déet ñun nag dañu yaakaar ne daraja daraja moom dara ju la ci ko yaakaar même su ma xamul dara sax ci sama daraja ji bu fekkee am am naa xaalis ñu ne ma sëriñ bi bu fekkee sama bàyyi fi nekkoon jogee fi ma toog palaasam amut amut solo eh, yëf yi dafa mel ni ñu ni sa papa nekk médecine di di opérer doomu adama nga xool ko sa papa yore laboratoire di opérer ay doomu aadama ndax sa papa jàng na xam-xamu médecine ko ñëw mu opérer la faj la yow sa papa yow ci sa bopp xamuloo dara ci wàllu médecine sa papa de nga ubbi clinique di maanaam di opérer doomu aadama yi man moom doo ma ndax booy xar sama biir bi di ma rey mooy ki papam jàngoon ba am xam-xam mu toog kër papam te xamul dara yorey taalibe ku mu opéré rey la ku mu opéré rek rey la parce que du la wax lu yàlla wax du la wax lu yonent bi wax dafa toogee darajay papam loolu nag amut solo alquran daf doon tere ina wajat naa aba ana alquran bëggut loolu fekkoon naa sama papa di nangam naa ko doon yàlla bëggut loolu yàlla nee na mën na mën na am sa papa yoon bi mu jaaroon jubul sa papa nit la mën na am yoon bi mu jaaroon jubul kon yow xoolal li nga xam ne mooy sharia muhammadiya Seydina Mohamed bu fekkoon ne day topp kilifa ni kon ay kilifam Qurayshin ñu ci bëri ay yéeféer lañ Seydina Mohamed papam yéeféer la Abu Lahabin mais yéeféer la kon doon na wax ne xam-xam ci boppam moo yëkkati kër gu doonu loon dara waaye réer ci boppam même bu sa kër yi te doon bu fa réer maanaam bu fa réer nekkee ah fu mu jar dina sànku am na ci benn waaye duma ko tudd jaraluma maanaam yitteelu ma bàyyam borom daraja la woon di jàngale moom na xamul dara naxaate la fi nekkee léegi fu mu wootee dina woo taalibe ne leen bu leen déglu waa rajo Dunia xamuñ dara loolu lay wax loolu lay campagne gam mag ma gam moom yépp loolu la ci wax actuellement kilifa la ci dëkk bi nag du ma ko tudd bu leen déglu waa rajo Dunia bu leen déglu waa rajo Sud FM ña fay ña fay jàng ña fay ña fay wax hadis ñetti hadis lañ mokkal ña fay wax alquran dégguñu alquran loolu lay wax moom loolu lay wax pourtant moom moo ñu fi jutu moo ñu ñu ngi laaj ñun ay masala ñun ay taalibe ma ngi feeñ ay taalibe ma ngi téléphoné naan ñu nangam ak nangam ak nangam lan la ci lislaam wax oui pourtant ñun biñ fi ñëwee yàggul mais ay mu murit ak tay taalibe tijaan ñoo ñuy laaj yi masala ana seen sëriñ si fan lañ nekkoon fan lañ nekkoon kon koo xam ne kii maanaam ja maanaam bul ñu téléphoné laaj ñu masala demal ci sa sëriñ sëriñ si la demaanam yow boo demee ci moom place sàngam laa bëgg intervention wala ñaanal ma xaalis kese kenn du ci dem ci sëriñ laaj ko masala nan la ñuy jàppee wala li ñuy julli moo tax Sénégal julli islam bi yàgg na fi mais ba léegi kenn mënta julli kenn mënta julli boo fi woon léegi ne ko jullil ma mu damm fi sartay julli léegi léegi léegi ñun de loolu def nañ ci expérience maanaam def nañ ci am nañ ci expérience kon sëriñ bi daf la war a jàngal naka ngay jaamoo yàlla ngeen ànd maanaam ngeen ànd jaamu ji yàlla waaye koo xam ne at ak koy gis rek moom moo la soxla woo la naa fi am benn sëriñ buy naxaate ma xam ne ñii ñu yeewu lañ waaye nit ñi ñu réer lañ nee na diggante sëriñ beeg taalibe bi enveloppe bi boolewu leen ndax nee na enveloppe boolewu leen mu ne dafa mel ni diggante bëy bi ak gétt bi ndax diggante bëy bi ak gétt bi nee na du ngooñ mi moo leen boole ndax ngooñ foo dem am ko waaye li leen boole mooy pas-pas bi buum gi maanaam ma ma xam ne kii mooy yeewu moo mën a naxaate ndax xam nga buum gi ba daggul fooy ñëwee indi euh, maanaam su buum gi daggulee booy ñëw indi enveloppe waaye su buum gi daggee nag sa enveloppe sa poos kon toppatoowul enveloppe bi may nee na pas bi ku yeewu la ku yeewu la ku yeewu la ci mbooloo la ko wax ñëpp ne est-ce que ma sama xel mais kii moo yeewu kon moom jànguloon nu mu yeeyee taalibe yi mais nu mu leen naxee la leen doon jàngal buum gi su daggulee balaa ngay dem lijjanti enveloppe boo demee joxe xaalis mais su buum gi daggee dootu ko gis kon buum ngi lay fexe maanaam di la tënk di la gën di agressé yow ci sa bopp islam moo libéré woon doomu aadama yi kon islam boo ci nekkee ba pare nekkaat jàmm kon yow ba léegi xamoo islam islam dafa ñëwoon def tahrirul ibad soo gisee yonent bi ñëw euh, maanaam kenn ku nekk ci waa Makka yor yàlla boo xam ne yaa ngi koy yaa koy jaamu kenn ku nekk yore yàlla booy jaamu yor ci pas-pas yoo xam ne dara wéru ci yonent bi ñëw ne leen qulu la ilaha illa allahu taflahu su ngeen bëggee am liberté wax leen la ilaha illa allahu yéen yëpp su ngeen ko waxee dingeen ngeen yéen ñëpp su ngeen ko waxee di ngeen texe kon baatub laa ilaha illallahu ci boppam moo libéré jàmm ñi sayduna Muhammad ñëw ne laa ilaha illallahu am benn ndaw su dégg arab dégg baat boobu nekko baat bi nga wax Muhammad dëgg la de mais dinañ la sonal de parce que ñi bëgg a naxaate baat boobu ñi bëgg a naxaate bëgguñ baatub laa ilaha illallah parce que da ngay libéré doomu aadama yi kon Sénégal tawhid boo gisee moom lañ manqué waaye bu ñu amoon tawhid rek ne kon tey caaxaan yu bari jógee ñun ñëpp dinañu yaakaar yàlla walbatiku jaamu ji yàlla liggéey dimbalante ci sunu biir islam bu ñu doon def li ñu yàlla sant mais faqir du am asaka ji ñuy génne pour defar économique bi la miraas miraas seddalee miraas pour defar économique bi la ak façon dimbalante yu bari pour defar wàllu économique bi la commerce baa ngi nii nit ñaa ngi koy def pour defar économie pour faqir bu mu am bu ñu doon tënku ci l'islam mais ñàkk tënku ci l'islam moo ñu sonal dañoo agressé ci wàllu agressé ñu encore ci wàllu l'islam bi laa koy dind nag mooy dellu ci yàlla am tawhid walbatiku jàngi alquran walbatiku jàngi alquran alquran kër ki ko jàng la dëkk te boo ko jàngee appliqué li yàlla wax barkeeb alquran fekk la fa barkeeb alquran fekk la fa euh, kër yi doon jàngee alquran yépp tey barke ba fa wàccoon démb gis ngeen loolu kër yi ñu doon jàngee alquran démb yépp barke ba wàcc na fa tey ñi toppoon caaxaan nag tey seen kër yëpp tas nañ boo demee ay guy nga fay fekk ki daqaar ñu naan la fii lañ doon yow xar yeeg fii lañ doon yow nag yi ban la am ban la am tey ku fi sa mam nekkoon ceddo démb da nga koy rusa wax tey ku fi sa mam nekkoon islam nag tey taranga ji nga ci maanaam yow tey yow ci tey yow yaa ngi ci taranga ji même soo xamul dara nit ña ngi la topp waa léegi nag est-ce que alquran moom day sàppi démb maa ngi koy wax ne alquran nekkul ba ba xonk bu ñuy xooj li ma wax nit ñi dégg nañ ko nekkul ba sax bu xonq bu ñuy xooj ñu naan lii lañ cey jël ak lale baaxatul loola ñàkk a xam alquran la ñàkk respecté alquran la encore ak ñàkk am ku fi toogal alquran moo tax mu nekk xalaat yu tasaaroo ci dëkk bi ñëpp noppi alquran ka ko jàng appelé ku ko la xam dafa nekk kitabun la yatihi l batil min bayni yadihi wala min xalfihi xanaa jànguñu loolu alquran mooy tontul boppam yàlla mu ne alquran kanamam caaxaan du fa ñëw gannaawam caaxaan du fa ñëw yow nga ne xent naa kaamil bi lii léegi ràkkal le léegi mooy diw gi pour lan ay doom adama di ko gëm te man ba ma juddoo laa commencé dégg kàddu googu Sénégal loolu mooy waxu nit waxu yàlla lan lañ ciy segg ak lan la ciy jëriñu pour lan alxuraan kilifa yi yëpp moom lañ jàpp kenn ku nekk alxuraan bi laa jàpp dama dégg ñuy wax naan loo xam ne ka ko wax bu fekkee lam wax dëgg la na ko maanaam na ko indi kilifa yi kenn du leen sosal seen lépp leer na dangay ngay dégg ku naan la xasida Serigne Touba yi xasida Serigne Touba yi mooy diw gi alxuraan la ci des mooy rakkal dégg ngeen ko dégg ngeen ko ay firikat laa dégg ñu koy wax ba tax na léegi ñu bëri joxatuñ alquran sens xasida rek la ñuy jàng am na waay bu ma ja xasida mooy wëy sëriñ Tuuba Seydina Muhammad alayhi salatu wasalaam la ciy wëy ak ñaan ak di la digal yow miy jàng xasida bi nga jàng alquran loolu la ci sëriñ Tuuba wax am na ku ma jaay benn xasida sàndaga ne ma boo xëyee suba teel jàng ko dina la jox wërsëg nangam ak nangam ma jënd xasida bi jàng ko sëriñ Tuuba di ma wax ne ma li ma waa ji wax ci xasida bi sëriñ Tuuba di ma ko wax ci alquran di ma ko wax ci bisub àjjuma jàngal suratul kahfi li lay jëriñ boo bëggee taraanga jàngal suratu sajda soo bëggee mbooloo jàngal suratu namli ba alquran bi jeex moom mu ne ma jëlal xasida bi di ko ko jox ma liir ci benn aaya ñëw na ko mais yow déggoo ko yow li nga ma wax ci xasida bi Serigne Touba ci alquran la ma ko wax moom